juróom-ñaari waxtu toftal fanweeri simili ak ñett dale nag jàmm ci xibaaru marax yi dina bokk ci li ñu waxtaane tey mbiru coronavirus foofee ca diwaanu Chine nag feebar baa ngi wéy di lëmbe loolu sax nemmeeku nañ ko timit foofe ca diwaanu France ndax rek jot nañ fa nemmeeku rek juróomi nit yoo xam ne feebar bi dal na leen jëwrin bi ñu denk lépp lu aju ci wërgu yaram ca réew ma nag di Agnès Buzyn nee na nag kilifa yi jël nañ matuwaay yi war rek ngir xool nit bi du mën a law ci jamono jooje nag ca Chine moom ñoo ngi xayma rek ci lu toll ci juróomi ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom-benn yoo xam ne rek faatu nañ gannaaw ba ñu amee boobu la feebar ñu ne nag jot nañu nemmeeku ki nga xam ne rek mooy euh, premier américain wala sax ki nga xam ne rek cosaanawul foofee ca réewu Chine te faatu ci feebar web ñu ne nag ab américain la dinañ jël si fii ci Ndakaaru dem ba ca diwaanu Mbaaw foofee ca cité bi ñu duppee ba Njaay Jaaji ñaxtu lu ñu bëgg rek mooy kenn bañ leen tëj gannaaw travaux yi ñuy amal ci train express régional pont yi ak passerelle yi ñu fay nemmeeku daal dañuy ragal rek junti jot boo ko mooy rek ñoom dañ leen di tëj rek dem beeg dikk bi xaw a tàggat tembe ci boobule diwaan dinañ dem tamit ba ci zone de Niayes fi nga xam ne rek moo féete Daaru Xudus Taïba Ndiaye euh, Meewaan ak Diogo foofee nag askan wi ñooy naan daal foog kilifa yi dàkkal li nga xam ne bradage maanaam seen suuf si nga xam ne dañ koy salfaañ ba tax na rek li nga xam ne mooy compagnie minière yi fay ñëw rek ñu dakkal seen liggéey bu ko moyul rek fii ki at yu néew dootuñu am fu ñu liggéeyee dinañ ñëw fi nga xam ne rek mooy place de la nation foofee tamit eh, ñi nga xam ne rek ñooy askanu Guinée ñoo ngi fay eh, dox ñaxtu tey ñoom li ñu bëgg rek mooy ñu saxoo constitution bi ñu ñuy romandaat mu aju ci ñetteelu mandat Euh, bi nga xamante ne rek président ba mu ngi koy saytu rek ngir mën ko def loolu nag nee nañ ci ànduñu ci euh, benn yoon dinañ ñàkk rek ñu ñëwaat ak suñuy ndaw ñi ñu fa toogal laata njeexitalu xibaar yi mbokk yi li mooy ponk yi gën a fës ngeen taaxilu tuuti ñu yaatal ko mbokk yi dal leen ak jàmm ci xibaar yi niñ ko waxee woon ci ponk yi rek lu aju ci feebar bi ñuy duppee coronavirus ñu ne nag mu ngi wéy di lëmbee foofee ca diwaanu Chine ca fi nga xamante ne mooy France nag nemmeeku nañ fa juróomi nit yoo xam ne rek amee nañu feebar bi euh, ñaari mag ak benn tout tànk we tax na rek jëwriñ bi ñu dënk lépp lu aju ci wàllu wërgu yaram di Agnès Buzyn nee na nag kilifa yi jël nañ matuwaay yi war ngir taxawu li ñu mel euh, def kem kàttan tamit ngir feebar boobee bañ ci biir mi ci jamono jooje nag Chine ñu ngi xayma rek ñi nga xam ne ñoo ñàkk seen bàkkan gannaaw ba amee feebar bi ci juróom-ñaari euh, téeméeri nit ñaar fukk ak juróom-benn gannaaw euh, juróom euh, fanweeri junni nit ak juróomi téeméer yoo xam ne rek feebar bi am na ko foofee te jiwaanu Chine ñu ne nag ca waa fi nga xam ne rek doomu Sénégal yi yaa fa nekk moom jot nañ fa nemeeku rek benn doomu Amérique boo xam ne ñàkk na bàkkanam rek ba mu amee boobule feebar ci jamono jooje nag bëri na ci askan wi ñi nga xam ne rek ànd naag tiiteel ba tax rek kenn ci kilifa yi di professeur Daouda Ndiaye féete foofu ca département parasitologie bu fac médecine mu ngi sàkku rek ci askan mi ñu ànd ak daal ndax nee na rek ñi nga xam ne ñooy kilifa yi ñu ngi def kem kàttan ngir fexe rek ba taxawu askan wi ni mu waree dañuy teewlu ay kàddum ci micro euh, Boubacar Diassi. naa parce que nit ñi coow li bari na boo xoolee corona téeméer boo gis ñaar moo moo fi am euh, corona loolu. moo dafa ëpp tuuti dafa gën a tuuti boo jëlee Ebola bi Ebola bi amoon na fi 2014 amoon na fi 2019 bi te téeméer yoo jëloon juróom benn fukki yi demoon dañ doon faatu te chinois yi dañ leen di félicité di leen gërëm parce que li ñu ciy am na solo mooy ñu ngi sécuriser doomu sénégalais yi nekk foofu ñu ngi sécuriser doomu africains yi te Sénégal li organisation mondiale de la santé di def li ñuy digle loolu la wax keneen ku deful li organisation mondiale de la santé wax ëllëg boo amee problème dañuy seetaan mu européens yi li ñuy def ak américains yi ne dañuy rapatrier ñoom la concerné nañu xam ne li ñuy def du santé li ñuy def du épidémiologie parce que li ñuy def bu ko ñëpp defee jàngoro bi dina law ci àdduna te bu jàngoro bi lawee ci àdduna ñun Afrique amuñu moyen yu ñu ko fajee mooy chinois yi parce que symptomatique lañ ko mën a symptôme lañ mën a faj mais jàngoro bi kenn mënu ko faj parce que xamuñu ko parce que jàngoro boo xam ne chaque jour day changé te bëgguñu ëllëg ñu indil ñu leen fii ñu am problème xam ñu ñu koy faje yàq les chinois ñoo nga xam ne am nañu doole am nañu xam-xam parce que judd na joomu jàngoro bi ay fan ay weer donc mooy nañu gëm ne nañu bàyyi ñun ñuy nekk ci docteurs yi ñu nekk experts yi fukki fan ak juróom maa ngi woon eh, Addis Abeba ci lii lañu doon waxtaanee pour xool ni ñu ngi koy liggéey képp ku ci xamul nañu may nañu ñu bàyyi ñu liggéey ñu desandi foofu ca diwaanu Ziguinchor dem ba ci quartier bi ñuy duppee Mamato foofe nag fan yee ñu génn rek la ñu fekkoon wenn dawalkatu woto mu faatu rek ci biir wotoom gannaaw nag ki nga xamante ne tamit fekkoon nañu fa ab apprentim mu nekkoon daal ci jafe-jafe gannaaw ay fitna yu ma amoon ñu ne nag kooku mu jën rek wuy ji borom gannaaw ay gaañu gaañu yu ma amoon rek ba tax na rek ñi nga xam ne ñooy police bi nañu l'enquête ngir fexe ba xam li nga xam ne rek moo sabab faatu. ñaar ñooñu maanaam chauffeur bi ak ki nga xam ne rek moo nekkoon apprenti ñu del si fii ci ndakaaru dem ba ca diwaanu mbaaw foofe nag ci quartier bi ñuy duppee ba njaay jaaj yi ñenn ci askan wi ñoo amal ab toogaanu ñaxtu tey rek ñu ñu bëgg mooy ñu bañ leen fàtte wala sax ñu bañ leen tëj gannaaw travaux yi ñu amal ci train express régional ñu ne nag bëgg nañ rek ay passerelle ak ci pont bu ko defee rek seen dem beeg dikk moom du mës a tàggat tembe dañ ci teewlu Amadou Ba moo yore seen kàddu ci micro Asmalik Diop. mu nekk bunt bi nga xam ne cinquante deux cité de la ZAC mooy seen yoon fii mooy seen yoon cinquante deux cité benn yoon moo fi am fii pour la ZAC benn yoon pour cinquante deux cité alors que fi mooy seen yoon ñu tëj ko mais fan la ñu jëm da ñëwee fii quatre heures du matin ñi ñaa ngi circuler amul sécurité parce que fii xale yi nagam fi en plein jour dañuy agressé fii passerelle daal la ñu bëgg on a beaucoup de problèmes gis nga canal à ciel ouvert bi ñoom sañul dem réewu tubaab yi da ko fa def Zac mbaaw dafa mel na bokkul ci commune de Mbao amul benn autorité bu nu faale muy maire bi muy préfet sous préfet muy euh, directeur de l'APIX kenn faale wunu ñu bëgg nu tëj ñii ñun dañu bëgg ray ñun ay mag lañu dañuy doxi suñu soxla Macky Sall na wax ci ñun ñun tudd nu gouverneur tudd nu préfet ñun Macky Sall dañuy waxal ci boppam ñun ba nu ko falee na seet li moo def addina dafa gudd tànk fii mu tëj ñi ngi noo bëgg rey sàcc na nu ba amatul dara barki dee ma loon ma agressé fii yóbbu sama yëpp taxi la mujj fay 5000 francs pour ma yegg si fii moom lan la na wax ci ñun ñun Macky Sall ñoo ko fal na wax ci ñun ah bu bëggee ay ñëw tëdd fii da tëj fii bu tëjee dana gis ay néew ñeneen ñu bëgg ñu wax ci seen mbir ñooy ñi féete foofu ca zone de Niayes ñoom nag ñu gis ne rek bëri na ñi nga xam ne ñoo ngi caxat caxatee seen suuf soos yi jaarale ko rek ci ay compagnie minière bokk na ci dëkk yi di Daaru Xudus Taïba Ndiaye Meewaan jógo ñoom li ñu bëgg rek mooy kilifa yi def kem kàttan ngir dàkkal rek suuf soos yi nga xam ne rek ñu ngi koy jël di ko jëfandikoo neneen ngi ko defee rek askan wi daan yëngu ci wàllu maraîchage tamit bañ a ñàkk seen ay activité Cheikh Anta Diop amaloon demek ki ondan çekseylaktır. te ñu ngi koy dagg di ko joxe jamono yi nag ay usines yëngu ci wàllu mine ay carrière ñu ngi yëkkati ay tool yu bëri ci zone des Niayes loolee tax nag ñii di producteurs yi baykat yi tiit lool am njàqare ba tax na ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu développement ay baykat ba ci ñi nekk ci bopp moomeel li daje woon ci Daaru Xuddoos doon ko waxtaanee ne nag mbir mi de dañ cee war a jóg. 80 li nga xam ne mooy production wu maanaam lépp loo xam ne mbayum dër la fi lay fekkente ne ñu ngi bàyyi compagnie yooyu ñu ñëw te au delà de compagnie am na aussi ay projet entreprise yoo xam ne ñu ngi ci agro business ñu ñëw di leen di jox ay 1000 hectares mais baykat bi nekk fii moom dafay toog baykatu dër yi nekk ci diggante Meewaan Daaru Xuddoos jàpp Jogo ba Kayaar ñoom nag nee nañ li leen gën ëlëm moom mooy usines yooyee de bu ñu gasee ba pare dañ ko fay bàyyi te loolee nee nañ ñu ngi sàkku ñu mën koo suul delloowaat ko baykat yi. nekk na ay pax yu ubbeeku. wante kenn jëfandiwu ko xam nga loolu day wàññi ci wàllu mbay mi maanaam fii nga xamante ni suuf su baax la woon pour mbay léegi kenn kenn laala du ko diggante ci wax euh, ci leneen rawatina ci ñàkk set bi ñu nemeeku rek ca booru gën jàpp Sicap Mbao ñu ne nag soxna yi dañu bëgg a jëlee foofee rek ngir gën a taaral seen boobule nekkin wala sax euh, nekkin euh, ci li nga xamante ne rek jot nañ ko def ay activité maanaam ku ci nekk rek indi sa doole ak sa mun min ñu boole ko rek ngir fexe bi taaral seen boobule bërëb dañuy teewlu kenn ci ñoom may mun a bàll lay woo ci micro Asmalik Diop ñun ñëpp président moo tax ñu jóg jigéen ñi tey taxaw nañu temm ne que commune bi bu setee seen commune la seen seen dëkk la donc du ñu bàyyi kenn seen kër yi ni ñu setee noonu la ñuy fexee ñu setee lee mbedd yi moo tax ñëpp génn tey di liggéey di woo yeneen jigéen jàmm gën Sicap Mbao d'abord ñëpp génn waaye di woo jigéenu Pikine ñëpp di woo jigéen Sénégal ñëpp jàppale le président de la République ndax suñu dëkk nag mel ni dëkk yi gën a set ci dëkk yi yëpp ci kaw loolu fas yéene nañ ci jàmm gën si kaa mbaaw semaine eh, nuñ ko waxatee calendrier président bu nekk. ah ñu génn dem ci beneen quartier tey ñu ngi si Kambaaw bu ëllëgee dinañ dem ci beneen cité pour que ñu mën a dajale commune bi yëpp commune bi yëpp set. moyens yi doyul mais xanaa d' abord di sant le maire de la ville de Pikine parce que nag moo ñu jàppale ba lii am mais aussi dañuy woo ministre bi mu ñëw mu gën a dooleel ñu si liggéey bi parce que nag euh, balaa ngaa balaa balaa ngaa def liggéey bu bu ngand d' nga am les moyens waaye nag di sant la population parce que nag tey ku doon génn rek am nañu am indaale ñu ne seen bale am nañu indaale seen peel ñu seen briquette donc nekk li nga yor sa kër génnee nga ko pour nga ñëw nga jàpp si liggéey bi lii wone na ne que solidarité totale moo am suñ commune te dinañ taxaw ñu wax ci njënd ak njaay maanaam commerce espace CEDEAO ñu ne nag am na ci ay jafe-jafe rek ci jëflante yi kooku nag euh, tax na rek ki nga xamante ne mooy Moustapha si Lo jiite woon parlement euh, africain yëkkati na ci ay kàddu ñu ne lu jik njàkk ñi nga xam ne rek ñooy kilifa réew yi maanaam président yi ñu faral bañ a ubbi seen bët ci li nga xam ne xeetu jëfin la maanaam bañ jëfandikoo luwaay ñu teg rek ngir réglementer lépp loolu nag mu ngi sàkku rek ñu gaay ko coyanti bu ko defee rek jënd ak njaay doon lu yomb ci askan bi kàddu yooyu nag mu ngi ko yëkkati grandaaw assemblée yu sous-région bi ci teewaayu Ibrahima Diame ñu teew la ko. xërëq yi ñuy wax ci li nu andi mooy jëndante bi ak jaayante bi ak duggante bi ak génnante bi ni mu war a doxe état yi ñoo ko gàllankoor wax naa ko chef d'état yi ndax wër naa réew yëpp ñenn ñi sax dama naan la seen frontière ña nga fay laaj neexal nga ni xam naa ko waaw def naa kase Doudou Wade wax na ko jox ko chef d'état yi ñu publier ko conseil des ministres maa ko jëkk a def ñoo xam dañuy racket di laaj xaalis ñu filmer leen mais président yi dañoo xool ree rek dem seen yoon waxuñu ci dara waaw lu tax ñu ne dañuy xeex corruption te ñooñu li ñuy def corruption la ndax laaj xaalis te loi bi nekk nga ñëw yor sa produit bu ñu war ta laaj douane nga ni ko dama koy téye ndax damay wàccee camion pataas bi mën na faa teg ñetti fan nga ni ko pour ma bañ koo wàccee de da nga may jox cent mille wala deux cent mille ndax loolu la gars yi di def duñ la ni fayal dañ naan la dañ koy wàccee ndax xamuñu loo def ci suuf loolu jaadu na nga xam ne yow sa pataas wala say euh, fruits légumes dafa war a yàqute nga joxe loolu nga ñëwaat ñeneen gaare la laaj la loolu looloo am ci yoon yi loolu nag lañ fi war a jëlee mooy li nga xam ne xeex la boo xam ne dañ ko war a xeex ñu wax ci njàngameek njàngale njàngal mi ak neesef ngir gën a taaral li nga xam ne rek mooy suñu alam maanaam suñu environnement loolu nag waa collège bi bilingue bu ndakaaru jot nañ ci amal ay jéegoon ñoom nag euh, dox nañ rek ngir fësal li nga xam ne mooy seen taxawaay maanaam ñaax askan wi ñu def kem kàttan ngir fexe rek ba li nga xam ne mooy cadre vie bi gën a mucc ay bu ko defee rek képp ku si nekk nga mën a am dundu bu neex ci loolu nag dañ ci teewlu seen directeur ak itam ki nga xam ne rek mooy seen responsable club développement durable ci micro Fatou Bintou Conté. ak ak voisins yi ak parents d'élèves yi ak élèves yi voilà pour sensibiliser ñi nga xam ne ñooy suñuy voisin immédiats ak un peu aussi d'ailleurs les abords pour que voilà ku nekk jël problème environnement muy sa problème bopp parce que voilà gis nañ dëkk bi nu mu nu mu tilimee et donc il faut que ñëpp impliqué wu pour mu changer pour mu set d'ailleurs je profite seen parce que def nañ environ 6000 pas Et on avait des sachets poubelles, mais on n'a pas trouvé malheureusement des, des, poubelles publiques où on pouvait jeter ces, ces, ces poubelles-là. Je pense que donc il faut que Nyepoudiapouti et aussi les autorités déconcentrées pour que ku am sa mbalit aussi boo ko euh, euh, bi ñu def jëmale ko ci wàllum climat daf ñu permettre ñu sensibiliser ñi nga xam ne ñoom ñooy askan wi xamal leen ni thématique gu climat jamono ji dafa nekk lu am solo waruñu koo jël di ko ñàkkal fayda ndax euh, dafa bokk ci suñu dundin te it dafa nekk loo xam ne faw ñu sàmm suñu environnement. ci yeneen ndaw ñoom nag li ñu bëgg ci ñoom rek mooy tàggat leen ci lépp lu jege industrie verte ñoom nag dañu bëgg rek ñoom ci xam-xam bu wër bu ko defee tamit lépp lu laal boobule fan ñu mën ci taxawal seen réew loolu nag jot nañ ko amal ci bët gànnaaru réew mi ñoom nag nee nañ dinañ fexe ba lépp lu laal changement climatique fuñ ko tudd rek ñu am niñ ci taxawee dañuy teewlu Abou Batou Banda Fall mooy présidente association recherche action développement ci micro Ousseynou Diop parce que Ndar dafa nekk dëkk boo xamante ne euh, gis nañ fi avancée de la mer gis nañ fi érosion côtière gis nañ fi wàllu euh, mbalit bi aussi saleté bi mu ngi fi gis nañ fi déboisement au nord du Sénégal et donc ñu ne quoi pas du ñu jël xale yi ñu jàngal leen tout ce industrie verte métier vert préparer leen pour suba. maanaam lépp loo xamante ni moom mooy recyclage biogaz bi da ciy génn tout ce qui est méthanisation énergie renouvelable comme ay cuisinière solaire l'agroécologie euh, mais également le fashion tech dugg un peu ci technologie bi parce que il faut que ñu jéem a leen initier dans tout ce qui est euh, exemple bracelet connecté ou abi connecté pour que ñu préparer leen pour suba parce que dëgg la waaw changement climatique bi mu ngi fi mais liggéey technologie mënul dem léegi entrepreneur bépp mënul dem sans utiliser les outils technologiques leen biñ ko lancé gis nañ ni 350 candidats ñoom ñoo soumis ñoom ñoo soumissionné seen dossier ñu jël ci 90 donc gis nañ ci pas-pasu xale yi ni ñor na leen te changement climatique bi ñuy wax aussi yëg nañ ci dara te bëgg nañ ci def dara te ci wàll boobu lañ leen bëgg gunge. jóge ci industrie verte desandi rek ci li ñu duppee emploi vert foofee nag tamit ca diwaanu ba nekk fu soriwul dara jululu jot nañ fa tàggat ndaw diiru ñeenti fan ñoom tamit lu ñu bëgg rek mooy fexe ba ñu am ci ab xam-xam bu leer bu ko defee rek activité yooyu ñu mën ci taxaw bu baax a baax dañu teewlu waree gànn sec conseiller la foofu euh, ca conseil économique et social environnemental ci micro Boubacar Diassi yi. ñi ma àndal ay 15 association de jeunes yoo xam ne dañu initier benn programme boo xam ne bëgguñu xale yi di ñàkk gëm seen bopp dañu bëgg xale yi mën a toog Sénégal mën a jàng mën a liggéey mën fi am koom-koom mën fi réussir parce que su fekkee dañu bàyyi suñu doom yi di dem ñu fi benn avenir day metti si ñun yaay yi loolu moo tax ñu ne nañu ñëw. waxtaan ak xale yi ñu àndal ñëw Casamance waxtaan ak les jeunes de la Casamance pour xamante ne emploi vert loo xamante ne ku nekk mën na si jariñu parce que emplois vert jaww ji da si jariñu emploi vert suñu koom-koom da si jariñu emploi vert suñu dëkkuwaay da si jariñu te li ñuy liggéey dañu bëgg suñuy doom ak suñuy sët fekk fi dara ndaxte bu fekkoonte ne te dañu jël suñu suñu fore daal di ko gor ba mu nekk désert suñuy set bu ñu ñëwee lan la ñuy am donc ñun da leen di initier jàngal leen affaire emploi vert affaire économie sociale solidaire bu ko defee ku nekk mën si gis sa bopp ku nekk mën si jariñ ci leneen dem ba ca diwaanu Saamin ci bët Saalum réew mi foofe nag ku ko tudd rek sa xel dem ci bombardement yi fa amaloon ñu ne nag portugaise moo ko amaloon nag gannaaw bu ñu jàppee ne rek ñii di waa PAGC féete woon ca Guinée Bissau dañ fa amoon base lool nag léegi am na lu toll ci juróom fukki at ba at bu nekk dinañ ko màggal rek ngir fexe ba gone yi gën a xam lu bàyyi ko ci boobu la histoire ñu porox ndolu nag ci li mel ngir sàkku ci kilifa yi ñu taxaw leen rek ndax nañ seen béréb boobu. bëri na daal lu fa manqué lool te ñu ngi sàkku ci kilifa yi ñu taxaw leen Bakary Konte àndoon fa ak eh, Khali Diame libération Guinée-Bissau armée portugaise daal di bombarder ñaari yoon commune bu Samin Escale mu fogoon nag dafa am benn base bu parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert ci diwaanu Samin. lu may fàttali dafa dafa bëri parce que ñu ñu bëri suñu waajur fa la ñu des te am na ñoo xam ne temps boobu ñu ngi woon école euh, ñenn ñi seen loxo damm wala seen tànk damm euh, ils sont devenus handicapés à vie ñu defar dara seen bopp donc loolu euh, à chaque fois su ma leen gisee wala su ma leen rencontré daf may daf may metti dafay sori si man. ci situation boobule commune bu Saamine daal di perte place leader bu mu amoon fii ci gox bi. amoon na ay parce que euh, fleuve bi chaland yi dañu doon chargé marchandise Ziguinchor seen escale bi Saamine la woon moo tax ñu koy woo Saamine escale donc euh, bu loolu amee ñëpp a dem donc bu su guerre amee ñu bëri suñu demee du ñu ñëwaat c'est ça donc loolu bala ngeen ba ngeen toogaat ba ngeen nekk nit day day yàq mais looloo tax ñu perdre capital départementale bi parce que soo gisee élevage agriculture ONCAD ah même la poste tout ce loolu yëpp Saamil la woon. Portugal ak ONU fu mu nekk nii war nañ jóg tem daal di jàppale commune bu Saamil pour mu développé wu. bombardement yooyu ay bombardement yu graw lañ parce que am na ñi nga xam ne Saamil waaye ñi nga xam ne dañu dee am na ñi nga xam ne dañu gaañu gaañu. dañoo amee gaañu gaañu. Euh, Portugal mi nga xam ne moo def loolu. ñoom dañu defoon ay fii la ñu siégé donc euh, moo tax ñu bombardé suñu dëkk bi Samin. c'est que ñun dañu bugg a que Portugal ak ñi nga xam ni ay ONU wala ay ay partenaires dimbale Samin. pour promouvoir suñu développement. cinquantenaire bombardement Saamine ak centenaire bu ñuy daal di créer Saamine loolu tax na ba doomu dëkk bi ñoom ñëpp jug ñi ne ñoom dinañ taxaw temm pour daal di porter combat bi loolu nag pour génnee Saamine ci pax bu mu nekk. ñu jël si fii ci ndakaaru ngir wax rek ci marche bi nga xamante ne rek waa FNPC di front euh, constitution front national pour la défense de la constitution en Guinée jamono ji ñuy wax ak yéen nag ñu ngi amal foofu rek ab doxub ñaxtu ngir euh, bañ rek lépp lu aju ci li nga xamante ne mooy ñetteelu mandat bu professeur le président Alpha Condé ñoom nag nee nañ dinañ def kem kàttan rek section bi féete fii ci Sénégal ngir yëglu euh, li ni ñu wax ci tàggat yaram ak neuvième journée Ligue 1 ñu ne nag ñetti rencontre dinañ amal nañ ko tey euh, fële ci stade Ngalandou Diouf Teungueth FC jamono ji rek euh, jiitu euh, mu ne moo Mbour Petite Côte ci ñeenti bal ci dara Dakar Sacré-Cœur moom devant ñaari tali match nul la Jaraaf bu Ndakaaru rek ñoom fële ca Saly moom dugal nañ fa benn bal ci dara ñu ne nag li des ci journée bi rek dinañ ko amal suba ci dimanche bi ak ci ñeenti match programme diwaan Ndiambour Stade de Mbour Génération Foot West Gorée AS ak Casa Sport Seneps bu Thiès ñu jeexale kook euh, li nga xam ne mooy participation équipe nationale U20 ca coupe arabe de catégorie ñoo naat ko amal fukki fan ak juróom ñaar jàpp euh, juróomi fan ci weeru mars foofee ca Arabie Saoudite ñu ne nag euh, ki nga xam ne mooy entraîneur bi tànn na lu toll ci ñaar fukki gonek juróom ñaar ñu nar a bokk rek ci boobule compétition ñu teewlu ci Cheikh Sadibou Diarra àndoon ceek Mambiram Diouf sélectionneur équipe nationale U20 bu Sénégal di Youssouf Dabo di waajal bu baax coupe arabe bi nga xam ni jagle nañ ko U20 yi ba tax kon muy amal liggéey andi coppite ci biir l'équipe bi moom nag ñetti joueurs yu Casa Sport yoo xam ni kon woo na leen muy Boubacar Faye Abdou Seydi ak Abdou Diédhiou waaye ñetti joueur bu Tëngéej FC di Malang saña Mbaye Jacques Ndiaye ak Abdoulaye Dabo ñu bokk rek ci kon équipe bi mu am nag yeneen ak cadre yoo xam ne sax ñu ngi ci nar lañ ci gunge muy kon Moussa Ndiaye John Lopy ak Abdoulaye Ndiakhate mondialiste cadet yi nga xam it bokk nañu ci sacre tournoi bu UFOA ci weeru décembre bi ñu génn ñoom it ñu sélectionné leen muy Pape Matar Sarr bu génération foot Insa Boy bu jàmbaar Birane Diaw bu Galaxy foot ak Samba bu daaru salaam ñaar fukk ak juróom-ñett joueurs yi ñu présélectionné nag ñoom dinañu bokk ci regroupement bi ñu nar amal muy regroupement fermé li ko dalee fukk fan ci weeru février jàpp ba fukk fan ak juróom ci weer bi ca centre d'excellence bu Guéréo coupe arabe U20 ñu nar ko amal lu ko dalee fukk fan ak juróom-ñaar ci weeru février jàpp ba juróomi fan ci weeru mars ca Riyad ak ca Damam nekk ca Arabie Saoudite am mbiram Diouf cant ak ngërëm ñeena la yaak Cheikh Sadibou Diarra yéen tamit naka noonu ci teewlu beeg safo bi ci kanam tuuti Cheikh Tidiane Diaw dina fi toog jukki leen xibaar yi ci tubaab jërë ngeen jëf.